بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو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 مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابليال أمنا في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز لا في أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اللي اخترت يا الله وإني أهيثها بك وسريتها من الشيطان الرجيم rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim barke boroom Daarul Muxti mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci Sëriñ Mbàkke mi toog toogaayu Sëriñ Moustapha Maymuna moo nu jox ndigal ngir ñu yëkkati ay kàddu ci aw turam te ndoorteel kàddu yi doon cant goo xamante ni daf ko yëkkati jëmale ko ci sëriñ Dame sàll mi sëriñ bi nee na mu koy sant di ko gërëm ndax taalibe bu nekk sa ngërëmul sëriñ moom ngay sàkku moom sëñ Mbàkke mii nag moo sant sëñ Dame Sall ci teeyug bakkanam te cant googu li ko waral sëñ Dame Sall moo ko jëf moo tax sëriñ bi digal ma ma yëkkati kàdduy cant yooyu jëmee ko ci sëriñ Dame Sall moom sëñ Dame Sall mii nag junj na ko léegi ki waral bis bi di sëriñ Moustapha Maymouna daf ko won mu gis kon ci lu gàtt rek xañ na am na ñooñ tey la njëkk a dégg turu sëriñ Moustapha sëriñu Dame Sall boobu mu leen wax li mu leen wax ci moom am na ñooñ xamuñu ko kon ma tënk ci lu gàtt rek jéem a xam leen na moom deesu ko xam kan mooy Serigne Moustapha Maymuna moom la ko woykat ba waxoon ni yaaram ci ndey la moom yaaram ci baay la sëtub yaaram nga doy nga mbakke Bal la sëriñ Moustapha dañoo mën a waxtaane may yi mu am ci waay juram sëriñ Modou Habib mi ñu doon wax léegi waaye mën a waxtaane may yi mu am ci soxna Maymunatul Kubra moom ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag mën a waxtaane may boppam yoo xamante ni bii maamam ju tedd ja xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne am na ci moom loo xamante ni ñu bari amuñu ko ndax weeru tamxarit 1926 la sëriñ Moustapha May feeñ ci boqatul mubaraka di njaareem ba mu feeñee jëmm ji meloon na noon amoon nañ ci tiitaange ci jàpp ni du ku fi yàgg loolu taxoon na maamam soxna Aminta Buso jël ko yóbbul ko ku tedd ki xadim rasul Cheikh Ahmadou Bamba sàkku ci moom ngir mu ñaanal ko ndax ku xamoon sëñ Moustapha gis nga meloom woowu moom la indaale woon àdduna ba ñu ñàkkoon yaakaar ci moom lan la sëriñ Touba wax ba mu ko yendoo delloo ko soxna Aminta Bousso mi waajuru soxna Maymunatul Kubra ak sëriñ Abdul Qaadar sëriñ Touba def ko ni dana gudd aw fan dana am barke te ëllëg maag moom nooy bokk këru àjjana muy ki nga xamante ni dañoo ñàkkoon yaakaar ci moom defe ni du fi toog ñaari way juram di sëriñ Modou Habib ak sëriñ ak soxna may mu Maymunatul Kubra soxna Maymunatul Kubra bi sëriñ Touba bàyyi ko gànnaar au mois de mai 1907 ñëw sañ ci Ceyeen Jolof au mois de juin 1907 la digal borom daarul mooti ngir mu indi ay dendandoo ci biir kër gi ñoo xamante ni ay gor la ñuy doon ay jullit la ñuy doon ñu man alxuraan la ñuy doon seeni wayjur di jëfandikoo di dunde seenu ñaq ca la indi soxna Mariama Jaxate di wajuru Cheikh Abdoul Ahad Mbakke soxna Faati Jaxate di wajuru Cheikh Saleh Mbakke moom keroog boo fa borom daaru mu ti dem mi ngi fekk mu yor jukkib alxuraanam di jàng ak soxna mbeeya ca doriga di waajuru Cheikh Mouhamadul Mourtada ak soxna Aminte Kanni Bousso di waajuru soxna may Maymunatul Kubra ak Cheikh Abdoul Khader Mbacké bi mu leen indee ca yéen Jolof soxna May ca yéen la feeñ waaye bi muy feeñ fekk na waajuram Serigne Touba di ko nekk ndax am na yitte joo xamante ni moom sëriñ bi. ganam gi feeñ di soxna may Maymunatul Kubra yitteem joojee moo ko koy fajal yitte ja mooy lan sëriñ bi bi mu nekkee gànnaar ci Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya dafa am doomam ju jigéen njooj dafa la fañ li ñuy wax polio moom la am jàng alxuraan rek la doon liggéeye ba bind ab kaamil Cheikh Sidiya bi mu jëlee kaamil bi wan ko ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ bi Cheikh Sida ni ko sama doom ju jigéen jii de moo bind kaamil bi sëriñ bi dal di koy xemmam daldi di doom ju jigéen ju ko bindal ab kaamil moom sunu borom def koy may ba noppi ni ko ñaan ma doomi Cheikh Sidiya jooju nga xamante ni musta dox dafa la faj mbég mi Serigne Touba am ca kaamil bi mu bind tax na sëriñ bi geesu ko ni ko indil ma baraada ak kaas yooyee ñuy attaaya Cheikh Sidiya ni ko moom kat sunu borom dafa téye tànk yi mënut a dox sëriñ bi geesu ko ni ko indil ma kaas yi ak attaaya kee mu ni ko sëñ bi kii tànk yi baaxul dafa lafañ mënut a dox mu mel ni sëñ bi def koo gëdd ni ko jox ma baraada ba ak kaas yi soxna sa ni ñokket dem jëli kaas yi ak baraada ba indil ko ku di xaadimu rasuul ci Ahmadu Bamba moom loole la bénéfice yoo ca kaamil ba bi soxna si feeñee sëriñ Moustapha may mu ne moomay nettali sëriñ bi jël ko jox ko sëriñ Dame Abdourahman sëriñ bi nee bo sëñ Moustapha may na ma booba sëñ Dame Abdourahman mag la ki doon jàngale ci daara ji Mor Gueye la tudd bi soxna si jàngee ba bind ab kaamil indil ko sëriñ Touba mu boole ko ak magam soxna Fadja. ngir mu tarbiye ko jàngal ko liggéeyub soxna bi sëñ bi ñëwee njaareem Cheikh Sidiya yónnee ab délégation ci sëriñ bi ba ñu ñëwee sëriñ bi jël joxe ndigal ñu jox soxna Maymuna ab gàtt ak pepp ngir mu def ko cere lay ba mu ko toppatoo ba noppi ñu jël kaamilam ba mu bindoon def ko ci jaafira teg ko ca kaw ndab la ñëw indil ko naar yi bi ñu ñëwee naar dafa bëgg lu neex bi ñu xéewloo ba noppi di sant sëriñ bi ci ñam wi ni mu gànjaroo ak ni ko soxna si defee ci la sëriñ bi génne kaamil bi ni leen ki togg ñam wi day moo bind kaamil bi doomi Cheikh Sidiya bind noon na kaamil waaye mënul woon liggéeyub jigéen kooku mooyoo meññ sëriñ Moustapha Maymuna kooku keroog ba mu feeñee ca ceen sëriñ Touba bari waana ku feeñ ci njabootam ba lañu ko wax ndax góor la walla soxna la day wax cër ba mu am soxna may Maymuna ba ñu ñëwee ni ko soxna Aminata ni bu sa am na gan daf ne moom day cërub góor la yor ñu dem fekk muy soxna ñu defee ni sëñ bi ndax dafa juum waaye déedéet soxna su am cërub góor la muy soxna may Maymunatul Kubra kooku moom mooy way juru sëriñub sëñ Dam Sall bi mu doon wax way juram wu góor sëñ Modou Habib wax na ko sëñ Abdou Khoudous Lo wax na ko doomi borom daarul moxti la ak soxna Marème Ball Sill moom sëñ Mirina sëñ Modou Habib bi mu jàngee ba noppi borom daaru moxti daf ko jël boole ko ak mbokkam sëñ Ibra Fan ñang jébbal leen Serigne Touba bi mu ñëwee sëriñ Touba jox ko këyit di ko bindloo ab kaamil nee na dafa gaaw bind ko maas ko sedd euh, euh, euh, sadd ko soqi ko defe ni bu jébbalee kaamil bi sëñ bi da koy yewwi ba mu jébbalee kaamil bi sëriñ bi joxaat ko këyit ni ko demal bind ba ca ñetteelu kaamil ba sëriñ bi yónnee ci borom daarul mooti ni ko na yebal kuy doxal sëñ Modou Habib ay yitteem ndax daf ko fi téye sëriñ Jaxu Jóob doomam tey mooy imaamu Arafa dëkkub sëriñ Moustapha May sëriñ Jaxu Jóob ak baay As ñoom lañu yebal ñu ñëw di doxal sëñ Modou Habib ay yitteem mu bindal sëriñ Touba ñeent fukki kaamil keroog bi ko sëriñ Touba di yeewi da ko fekk mu toog mu jël satal ak ndox sotti ko ko wàcce ko ni ko demal Daaru Muti ca wetu sa waajur kon ñaar ñooñu ñoo meññ sëriñ Moustapha Maymuna li sëñ Dame Sall wax léegi itam ci li ko sëriñ bi wax ni day gis sëriñ Touba. kooru 1800 1995 Serigne Khalil moomam bi mu tawatee ma ànd ak sëñ ba si Basirou sa yóbbu ko itali te sunu borom jëfandikoo la ko soob ci moom kere bi ma jógee Italie ñëw nu yoog sëriñ bi ci saal bi dafa jóg dugg ci ne bi woo ma man ak moom ak yàlla ma ni ko jàllaa bi bii de sëñ Abdou moo ko joxoon sëñ moom la soloon mbir yi dem ak jaaroom bi man la ko dénkoon sëñ Moussa ni ma xamoon naa ni du dellu si de. ndax démb ci tàkkusaan la ma sëriñ Touba fekk fii ci lu dul gént gannaaw tisbaar ni ma sëñ xalit du dellu si kon kooku mooy sëriñub sëriñ Dame sàll mi kooku moo waral wooteb tey bii jëmm jooju nga xamante ni dafa tabe woon ba mel ni ab taw sëñ Moustapha daf daan xëy di joxe di joxe di joxe ku dend ak moom loo yor mu leb la ko joxe da daan dem ba dépassu kër gi nit ñëw diis ko soxla mu jël dépense ba joxe ko ni soxna si war a dem marché toogal nu xaar yàlla kooku mooy mustafaa may muna jëmm jooju nag bi mu fi nekkee sëriñ Mbàkke mii def koo jàppewul woon wayjur Serigne Mbàkke dafa laxasaayu ànd ak taalibe yi di jëf-jëfi taalibe ñeewantoo sëriñ Moustapha May lool di ko jëfal ba làq ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi fekki maamam ya aljana moom sëriñ Moustapha Maymuna baax a ngi yem ci kuy sa maam sëriñ tuuba kuy sa maam borom daarul Muxti moom mii nag moom sëriñ bi nag dafa am nit ñoo xamante ni bii dafa am nit ñoo xamante ni lu ñu baax rek doyut dafa am ñooñ lu ñu baax doy na waaye dafa am ñoo xamante ni bii lu ñu baax doyut ñooñee nag ci la sëriñ Mbàkke mi bokk lu tax way juróom sëriñ Moustapha Maymuna mooy waajuram waaye mooy nijaayam ndax fi mu feeñe moom bi kuy sa maam Serigne Modou Habib moom borom Daarul Moxti moom sëñ Mor Anta Sali kuy sa maam Serigne Mbakke Kanni moom Serigne Mbusoobe sëriñ bu soobee bokk ak soxna jaaratullah lépp kon li sëñ Modou Habib waxoon léegi manees na ko mag ci yoon wi ëpp ko ci ay at waaye mëneesu ko cee gën a bokk mëneesu ko ëpp itam Pastef kon sëñ Moussa Ka dafa waxoon ni garab loo fa gajje rek loola moo fay seqee kon la sëriñ Modou Habib waxoon bi mu fiy jógee ren la ci juróom benn fukki at ndax mois de mars 1960 la fi jóge waaye gannaawam la sëñ Moustapha May sañ ci Arafa te booba jamono neexul way juróom bàyyeewu ko ab dëkk Arafa gannaaw sëñ Modou Habib la ko sañ waaye moom sëñ Moustapha woykat ba nee na ko defar na arafa def na fa jàkka mel na ni arafa gee fa makka euh, pénja ma yaatu na garab ya féex na te ku fa faatu dal di tabbi janna sëñ Modou bi bàyyiwu fi ab nekk ab ab dëkk sëñ Moustapha def ko waaye sëñ Moustapha bàyyiwu fi juma na xam bàyyi woon na fa jàkka waaye ku amoon yéene la ci néegub sunu borom néeg boobee nag moom la ko sëriñ Mbacke mi defal ànd kook ay rakkam ak taalibe sëriñ Moustapha Maymuna kon fi may daaneele rek mooy nun ñi yaakaar sëriñ Moustapha Maymuna sëmb wi doonoon naalub sëriñ Moustapha Maymuna te sëriñ Mbacke gannaaw waajuram mu taxawal ko mook ay rakkam nanu ci góorgóorlu ndax kër sëriñ boo dem la fa baax taalibe ya nun dey nun taalibe yi bu manqué di am nun nooy manqué waaye sunub sëriñ day mat na sëriñ Moustapha may mun a day ñamu jamonoon teeloon yabuñu ko sëñ Mbàkke mii mu fi bay itam ñi mu jamonoon teel ñu maseeg moom ay at yabuñu ko kon nun ñi yaakaar sëriñ Moustapha may mun a nanu góorgóorlu ci néegub yàlla bële ndax naga di kat mënoon na sëriñ Mbàkke laaj ñu jox ko ngir néegub yàlla ba mu defe ko neneen su boobaa lu ñu man dara mbaa kuy wax itam da dem ba wéet naan sëñ bi de lañ ko joxoon mënoon na ko def ci jumaa ji waaye jënd na ko oto wala def na ko léeg moom loolu daru ko kon nanu fedd liwaat sunuy laxasaay ci néegub yàlla bii nga xamante ni ndaalub sëriñ Moustapha May la woon mu bëggoon ko lool ci ay niseram la woon te sëriñ Mbàkke def ko kon nanu ci góor góorlu lu waay man def ko ci te nu ñaan ci darajay maamam ya néeg bee mu eggale ko ba defaat fi yeneen naali boppam sunu boroom man na ko kon nanu ñaan ci darajay maamam yooyu sunu boroom may ko fanwu gudd ak wér gu yaram musal ko ci am ndog te musal nu ci yàggal nu ci gannaawam kàddu yi daal la ma sëñ bi ni naa ko wax xam naa ni waxe ko nam ma ko waxe woon euh, jafe na lool waaye dama doon njéem rek kon daal lii moo doon kàddu yi nanu góor góorlu ci jumaay arafa ji ñaanal sëriñ Mbakke mu yàgg fi te kon sëriñ Dame Sall tey làq nga ngërëmul sëb sëriñ ndax sëriñ Moustapha may nga yaakaar te tey Serigne Mbacké moo fi Serigne Moustapha Maymouna maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala bismillaahi fiinin agaana yàllaawum safi baqa abin bi fiinka yàllaawum yaa man lawool amru yaa man laa sariika lawo wasi wa ma lil waad li fiika yàllaawum وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله أنت لي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي الدر منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برحمتي ألا أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله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 خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز لاسي أطيب إيستي إذا يقلد للتكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله